nañ ma wax jamono yi sol saaku benn mbubu fukki nit am ko ku sol ku dem ba dik ci xew sa morom dem ñi ñaw ay saaku ak di ngembu mag ñi ko fekke mako net ni ngembu jamono sama maam ji jur sama ndey daana wax jamono ba may ngembu di ba wako ni yere yombu dem ci li nga xam moy comportement bay Fall si walum gisin li gis moy ni ngeen gisee kurus lafai, njaxas yi turu ciara yi lépp ne day taral yoon bu tedd bi di yoon mourid kon seigne Maodo bu ñu tay ci si waxtaan bi ñuy dugg ci wàllum melokanuk Baye Fall melokaanu Baye Fall mm-hmm. si wàllum colin melokanuk Baye Fall si wàllum teggini wax nax amna na sama benn mboktaal bu mu sa wax ne man lam ko gëna jaaxal moy Baye Fall moom gi mu moom patrimoine bopam mm-hmm. nga xamne ne gis mu ngi soli njaxas mm-hmm. mo xam vaccin lay doon wala mu doon jesnier wala mu doon machine riche melokaanu Baye Fall si ak jamono ji waaw kay xam nga euh, fi ma koy tàmbalee sax mooy mbale mi jàll rek bi nekkee ci waar wi ci côté Kër Ñang Touba dafa am benn murit boo xam ne dafa sol benn silatma ak benn boobu ñëw di nuyu sëñ Falloum sëñ Modou sëñ bi ah, jublu mu daal sëñ bi ne ah, da koy sàng ndax ki sëñ Touba moom. waaw kii moomoo ko sëñ bee ko moom da koy da nga koy sàng daan na ko boo toppee tàngoor wi da nga mujj def yaramu nen xam nga kon sëñ bi dégg na ko xam na ne wóor na ma ne lim sol tàngoor wi tax muy féexal daal ci misaal laa la jubloo wax mu ne ko waaye boo toppee tàngoor bi bu yàggee yaramu nen ngay def tey it nag loolu mooy li am ndax ñun ñëpp ci bokk yam tey li ñu daj ciw tàngoor euh, suñu digganteeg sëñ bi moo nu jaaxal ak li ñu war a muur suñu yaram te yàlla sant nu ko waaye kon fi ne keroog sax buñ ko mënoon doxantoo doxantoo ko. bu woon ak bu du woon ak bu du woon ak suñu digganteeg sëñ bi te xam ne lii sëñ bee ko moom dañ ko war a muur ndax moomatuñ ko ñëpp joxe nañ suñu bopp ba noppi. Uh-huh. suñu yaram. Uh-huh. ak tamit li ñu yàlla digal ngir ñu war a sàmm sàng suñuy cër. Uh-huh. bu du woon ak loolu nga xam ne tey. Eh, maanaam def ko ñàkk ko def amu ci lenn lu ci lu la ci des am gàll wala lu la ci sa diggante sëñ bi gàll xam nga nga xam ne bu la neexee nga xamne kenn dula ci ngagn kenn dula ci tek ay daan du la ci da naka la lay wax de manam manam sol kilo teg siretment ndax ndax ko lay bëgg lu fex waye nak li waral ñukoy ñukoy sang ba ba di sentir ne tangor yu ñu ñu japp moy dañuy mural señ bi der bi ta xamne xam nga ndax Cheikh ibrahim Fall mi nga xamne ne tax ñu tok fi di waxtan mhm. so xolé jëmum photo yi nga xam photo bi nga gis mhm. lu du xar kanam bi mhm. ak ak lu du xar kanam bi sax laay wax ndax ndax ndax sax ay dàlli ay dàlli bot la sol te yére yi mu sol wàcc na kon lu du xar kanam ba ci loxo yi sax daa dugg ci biir mu xam nga yére bi kon lu du xar kanam bi mënoo foo gis ci jëmmi deret maam Cheikh deru maam seex Ibrahima Fall kon loolu day wane ne kon daa doon lu war loo xam ne murit bu ne war nga cee mën war nga cee bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax te it nag li ñuy wax taaru murit mooy bu la séenee war nga ñoo xam ne murit nga ci solin bi bu dara sax ndax muru gi murit cheikh rofal neena yomal khiyam mom la seug bam ñëk fay ndax muru gi lolou bay sini sek la ko wax mhm. bay mustafa sek mang koy ziar bu baakha baax mako netti ci lamu ñu bokkum bay sini sek sa am cheikh day dox bam yag am ndaw lu ko traverser muna ah, he he dom ki num tuddu mhm. wa dom no sant muna ko sek muna mhm. ko no tuddu muna ko sini cheikh ibrahim fall nako ah, sini sek muna ko waaw muna ko dom xana murit nga mu nako waaw muna he he dom muru nga murit lol dom ah mo ne nuru nga murit xana xanaa xamoon yowmal khiyam mhm. nuru gi murit la seigne bamba njëkk fay ëllëg waaw ah. yowmal khiyam nuru gi murit mhm. cheikh ibra fall ne mo la seigne bamba njëkk fay ëllëg nee na daan nik nikk sans loxo dan dom xana xanaa fii ma daan na doom ah ma jublu mooy penku bi mhm. ñu ne ko waaw cheikh ibra na waat naa ci kaaba gënal lu yalla bind murta ci gën tey waaw kon ku ne seen war na xam ne murit nga ndax doguma la bala maa jàll bàyyi bàyyi euh, mudu wadd jës bu kër Baye Moussa Sall ca Mbakke Baye Moussa Sall nag ci mag ñi Cheikh Ibrahima ndax jaag ba bañ tegoon saa am Cheikh sax façon ñu ko yóbbooloon Touba. mooy loolu ñuy teg ku fi bàyyi ko. ba bañ noppee Baye Moussa Sall lañ ko jox man mii di waxee teg naa ci sama bët ma nga ca këram barkeelu lañ ko def. nga xam da ngay ñëw doomi Sëñ Tuubaa bi daan nañ fi ñëw di ko di ko barke di barkeelu si. nee na nee na euh, Baye Moudou jës bu nee na Eh, taxaw bundu kër Baye Moussa Sall ci mbacké seigne Dame abdourahman Lo romu ñu jëm mbacké bi mu séné daal di gaare ci buntu kër gi wacc dugg ci kër gi né ma dajeeg moom nee na nuyu ko nee na nuyoo ko dara mu né nik sama loxo xol sama nee mi ngi ma ka tambalé xol ba wacc na ma xana ci ko Cheikh Rafal nga bok ma ne ko jaar na ci dara gi ci gébb ja ci gébb kon lolu moy am mourid day sagal day sagal mhm. ci kim bok da koy sagal ngir boko ko séenee mourid la waaw mhm. waa kay jërëjëf sëñ Mamour si leeral yu am solo yooyu noonu mhm. waaye bu ñu dikkaatee ba tey si wàllum taar mhm. ndax bu ñu nee taar wax lépp loo xam ne dafa sell mhm. waaye bu ñu nee taar wax wàllum li mu koy waxee chaque jour mooy wàllum civilisation ñuy faral di dégg ne Baye Fall civilisation la loolu si ana ban fànn lañ lañ lañ lañu mën a gisee ni Baye Fall civilisation la ndax Baye Fall kat gars yi dañ ko jàppee takk ak tilim Baye Fall dañ koo jàppee xeeñ waaye ñu loolu kat mu doon loo xam ne dañoo umpale lan mooy jàngale maam Seero Fall euh, si si si si si ndax ni nga ko waxee léegi-léegi si nataal boobu noonu nga gis dem nga bay wax ne maanaam la mu la muy sol palmaan la sol te ñu bëgg xamalaat mbokki taalibe yi lan mooy Baye Fall Baye Fall civilisation la ngir Baye Fall du takk du tilim Baye Fall du ñàkk xeeñ xeeñ gu xet gu neex waaw mhm. waaw xam Euh, cheikh ibrahim mom wah na ci làmmuñu boppam mm-hmm. nan ndab lu taq mm-hmm. yàlla du ca def xaw ña moom cheikh ibrahim ko wax de loolu boo demee ci waxtaanu sëñ mu dab fandar faal dara te mu waxtaanu muy sadiq da mm-hmm. dan ko ca fekk te nee na loola nee na maam gunda ña nga ko ko nettali te maam gunda doomi sëñ maafaal ñang la ni jaay sëñ mu minta cheikh ibrahim ko moom euh, diggante daaru teneeful gi xam nañ li may wax cheikh ibrahim faal nee na ndab lu taq yàlla du ca def aw ña kon cheikh ibrahim dara lu taq du ko jege moom tayit mag ñi nee su la su la masaana daan di ñëw bu lay bu lay bu lay bu lay mo si parfum bu ñuy xeeñ mo lay xamal na Cheikh ibrahim ñëw bi ci dessit moy waxal nga ko sa bop palman mom ci jamono ji mel na ni li gëna a ci ndimu la bok mhm. kon bako Cheikh ibrahim di am yan jamono la hmm mhm. bi ci moy euh qualité yére yi mu daan sol ndax Cheikh ibrahim daana sol kaki parce que kaki la ko mëna ndax man lima gis dana mhm. am na ci lool mom xam nga euh, comme àddina ñu seetaan. Uh-huh. te gars yi lu loo ne teg naa ci sama loxo. Uh-huh. wala gis naa ko wala laal naa ko. Uh-huh. benn yéene benn yéene képp lañuy am. mu muy teg seen bët comme na nga ci tege sa bët wala laal ko na ko laale. ndax dañuy dañuy dañuy am yéene loo mos. loo ne mos naa ko ñu fexe ñoom nañu def ba mos ca. xam nga. <laughs> tey bëgguma ko moo sonal. moo tax waaye kon ma ne la. Cheikh Ibra Fall daana sol yére yoo xam ne boo ko tegee sa kaw. xam ne yére la. ci walu qualité waaw man na mas ci gatcho ben way wallahi lancim ne da nga xam li mom qualité tissu tissu deug dëgg gi nii da nga manam yow boo solee mbubbum Cheikh ibrahim Fall ba sun da nga da nga naan maanaam liggéeyatuñ tissu liggéeyatuñ ko dal manam ndimo liggeetul ko mhm. falsa lañ ñu jox ngay wax da nga nan falsa lañ ñu jox ndax ana li mhm. fuñ ñu koy jëleeti ci mhm. diisaay ben bu ne boko ko da nga yéemu ci yalla kon qualité la daal sol ta kat di ma la wax ni sax du du du du sax yam daan yam daan këppoo nga xam ne mooy comme yi nga gis ci photo bi mhm. njortu naa ne te lam daan jiital sax la bokk <laughs> waaw mhm. ndax kenn ci mag ñi la ko la ko summi mhm. solal ko ko na ko koo bëgg aajo faju na nga ko solal tey waaw ba tey tamit si wàllum patrimoine ni ngeen ko gisee noonu ñu gis Baye Fall njaxas njaxas lan moo andi njaxas si yoonu Baye Fall ba tey jii ni gisee ñun suñu plateau gu taaru gi macha allah koo gis tey ji si tissu yi gën a seer ndax tey ji boo xoolee jasner boo boo waxee palmaan daanaka moom nga si teg wala sax mu njëkk palmaan tey jii nga xool jasner ni ko gars yi di jëlee boole ko ba tey ji def ko jaxas mun koo sol te foo génn ñu ne ah diw kat Baay la comme la suñu laa naan murit foo na koo jàkk xam ne ab murit la tey jii nga gis gars yi nañuy jëlee maanaam tissu yu baax yooyu nga xam ne moom lañ jël valoriser ko léegi jàpp ne ku ko solul sax ñu jàpp ne amoo amoo amoo amoo alal Baay Faal jël ko def ko boole ko mu doon benn collection ni ñu ko mën a woowee collection ba tey ji def ko am jaxas foo tourné tey ji mun ko yóbbu fu ne tey ji ñun su ku ñu gis xam ne tey ku ñu bu ñu président woowul woon du ñu changé melo te maanaam suñu jaxasee li ñuy jël dem dem dem dem wuyu ji ko euh, président. kon wàllum jaxas si si si yoonu Baye Fall. ok xam nga sax tekkiwul ne. Mhm. Cheikh Ibrahima la jaxas di ko sol. Mhm. déedéet loolu daal tekkiwul maam Cheikh. Mhm. daan jaxas moom di ko sol. Euh, boo xoolee nag fotom da nga gis ne lu weex la ji tekki lu kon jaxas na. Ah? ndeysaan waaw bi ci dess itam moy bi mu nekkee ci daara ji mag ngi nenañ nañ daana tarbi señ bi ba xam nga bobu nak yéré dafa dafa yombul xana xamone man fekk na mag ñoo xamne ne nañ ma wax jamono yi sol saaku benn bu fukki nit am ko ku sol ku dem ba dikk ci xew sa morom dem ñi ñaw ay saaku ak di mag ñi ko mako net ni jamono sama mam ji jur sama ndey daana wax jamono ba may di ko ni yéré yombul Cheikh Ibrahima nag bi nekkee ci àll bi tarbiya te xam nga tàngoor week ñaq week yooyu ak xorom si koy dagg léegi nag léeg bu rombee dara jël ko taf ko ñaw ko ngir mën a suturaal yaramam pour àggale liggéey bi kon mën naa am ne ca loola bokkoon na ci la doon nuru jaxas mais pas que comme ñun ni ñuy def mooy jël suñuy mos a dem jël sunu genn wàllu jasneer bu weex genn wàllu jasneer bu genn wàllu nag dem loolu na dem ca téer ba commande bu mhm. non non Cheikh am na bis nag mag ngi nee nañ Ibra Faye Ibra Faye benn taalibe bu nekkoon ndar mas naa ñëw caayee njaxas mag ngi ne ci lañ ko njëkk gisee moom ñëw indil ko Cheikh Ibra Fall keroog ba mu ko koy jox sëñ mu ndumbe la ca fekk sëñ mu ndumbe sax nee nañ euh, moom bis booba sax sàkk woon na ngir mu jox ko tubay joojee maanaam ngir mu jox ko loolee kookee moo njëkk ñawal Cheikh Ibra Fall njaxas indil ko ko waaye ndekete booba it xam nga seex lum laal mo gën lu mu laalu waaw kuma laal bax ku laal kuma laal bax ndax ma laal bam sañ jéeri wa dama moko da wax loolu da seen ci seex ibra ndax la tax moy bam bam ca tegee loxam rek la barkel ba fi ne kii gàllaaj la xam nga ci loolu njaxas a ah, demal ci mag ñi demal nga jël sa laalu mam nga nga nga nga nga nga nga luxarte ca suuf da nga gis ñu laal ko njaxas ñu laalal njaxas jital ko tek ca ki kii gàllaaj la de kon dekete Cheikh Ibra kenn mënu ko kenn xamul lu mu doon uh-huh. waaye nag solo bi gis nga uh, mbaxana mii Cheikh uh-huh. Ibra ñaar la ci daa tegale mhm. bàyyi xanaa mooy loola ñuy woowee cur cara waaw gis nga li gis nga li li nga gis mu génn fii uh-huh. tam kaaloo ko te boo gisee photom bi nga gis mun a jóngu nii loola du ay resta de gars yi ñu ngi tuuma de ñu ngi tuumal Cheikh Ibra de du duy resta de loola laar laar baa wàcc ñu ñu ko laaru mbaxana bu ma wàcc ñu kaaloo ko mu feeñ mu feeñ fii bàyyi bu ñag moo ma ne gis naa ko ba tay ñaari mbaxal la daan sol door a kaalawu teg kaalaw sàmba sànga yu gudd yi la kaalaw ba mbicc may wàcc ci comme yii mbicc may wàcc ci suuf hmm? waaw léegi nag kenn daawut gis kon boppam neenam Cheikh Ibrahima danaan kaalawu danaan sol mbaxana ba pare kaalawu teg ca njañ yi ngay gisit yorut gudd yi yi yor déedéet Baye Ibrahima ci am nee na Cheikh Ibrahima Fall nee na ma bis doom ku ci yor yu gudd yooyu demee mel ay jëmmali keleng watu ju te xam ne nuroo maa yow sama yos du tilim mhm. du teeñ du sëq ndax Cheikh Ahmad Tidiane Serif moo ma ko fàggul ndeysaan cey mhm. mhm. waaw kon mel na ni day xanaa ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñuy fàttali sax ne maanaam waxtu wi lañ dese bëreetul waaye buñ duggee ba tey si maam Serap Fall foog gam fonkoon ganale garab ku ne xamna ni bamuy wuyji bamuy wuyji ndar nak hmm. ndam ma laajtee maanaam naka lañuy nak lañuy ñuy teralee gam hmm. ba tax mu wajal bopam ci wajum ci walum ci ci walum waccay hmm. nga gis ni Baye Fall léegi ma ngi siyaare baax baax koko ñu naan seigne Fallu Modou Aminta ak seigne moussa ambar nga xam boy dañuy sol ki day sol jasneer gu bëla gu bëggal bëla baxa kee sol jasneer gu bëla seigne ñom bo leen ne jak seigne fallu seigne Modou Aminta ak seigne moussa ambar bo leen ne jak xamna ay murit lan ben ci solin wi ci melaw wi ci yar bi ci teggin yi mhm. ci pëstéef bi ci nangoo joxe maanaam daal dama dama lay wax benn mbir mooy dama lay leeral ci ñoom ñaari ñooñu mhm. mooy bu seerafal del siwaatoon jamono moom mhm. du ñu di sa jox loxo tey du ñu di sa jox loxo de ndeysaan waaw wàllum fonction boobu nga basi ba si sarfet yi nga xam ne daanaka kon daal si euh, si si si tënk mm-hmm. mooy Baye Fall lépp loo xam ne dafa set sell mm-hmm. lépp lu gën si mhm. ñoom si si si si si Baye la gënee mhm. te yàlla xam ne ni dañ koy jël defaat koy maanaam ay jumtukaay ngir liggéeyal Sëñ Tuubaa mhm. ndax tey jii boo gisee mbale ma comme ni nga ko waxee sànq si sa si sa tàmbali nga gis mbale ma boo ñëwee doo xàmmee maanaam ka nga xam ne mooy ingénieur ka nga xam ne mooy am doctorat ak ka nga xam ne moo yor oto bu Range Rover ndax Baye Fall kat lu gën lu ne ñoom ñoo ko moom waaye da gis koo xam ne day sol ab sagar nekk si biir mbalitu Tuubaa yi la nga xam ne borom alali sax ñoom maanaam jomm jommale nañ ko seen bopp maanaam mooy takk ak tilim moom la Baye Fall li jël moomale ko ba pare te bu ñu delloo Ndakaaru seen bërëb liggéeykaay koo leen ne jàkk doo leen xàmme barki maam Serap Fall di siyaare baax a baax baax mbokk taalib yi nga xam ne ñu ngi seetaan loolee mun a ñu naan taaru murit waaye dafa dafa dafa mun wóor a ñàkk rek jotaay bu mel nii ngir waxtaane maam Serap Fall ndax mënoo ne yoonu murit te doo wax maam Serap Fall kon di joxaat euh, mbokk taalib yi loolee nga naan mooy mooy dénkaane xam ni kat nañu fonkaat jëmm yi ngir alalu maam Serap Fall la waaye nañu fonkaat xool yi ngir alalu maam Serap Fall lañ mm. yi nañ ko defaraat waaye defaraat melokaan yi waaye defaraat yar geeg teggin gi royaat sa maam Cheikh Fall comme ni ko jëriñ Mamour waxee léegi léegi si wàllum maanaam patrimoine Baye Fall ku ne Baye Fall kat xam ne daa am lam moom ba tax kon jarul ñuy jëli lara di ko di ko di ko jéggaane kon duñ def lu sëñ Mamour hmm. maanaam mu dolliwaat soññaat mbokk taalibe yi si ay kàddu gàtt rek bu ko defee daal mu ñaan ñu siyaaraat mbokk taalibe yépp nag ñi nga xam ne ñu ngi ba hmm. di di eh, seen seen boobu di Jazboul Mouride xam naa li may soññee rek mooy Baye Fall daal day jonge dégg nga ma. Mhm. Baye Fall day jonge. wolof nag day yàq baat. Mhm. moo tax boo nee jonge ñu yóbbu ko feneen waaye Cheikh Ibrahima nee na jonge mooy xam fu dara ne. ne nga suuf ko ba mën ko ronu. Mhm. neex kàddu bañ duyal la ca. foofu la Cheikh Ibrahima nekk ak ñoom. ndax ñoom li fi fi yëf xam nañ ko. nañ koy wutee it xam nañ ko. tayit am gi ken wérante wu ko mom Cheikh rafal waaw mom mom mom ñepp xam nañ ne yëf ci loxom la tege te wax na ne fa ñuy fayee ñaqal sëñ Bamba fa taxaw ëlëk ma lay fay mbaa fay kon koko yor bagage yi kon koko la ñu sëñ Tuubaa joxoñ mhm. nañ ko top xol ko ci melaw mhm. xol ko ci jikko xool ko ci pas-pasam xool ko ci pëseefam ci diggante ma sëñ Tuubaa roy ca loolu ndax ñu dox sa sang bu baax ba ko sëñ Cheikh Fall Baye Góor nee mhm. aw yoon bañ koy sàkk dox caa taxawaay tuug taxut ku toog bokkoo te yoon ñoom ñëpp xam nañ ne Cheikh Ibrahima ngi dox kon yàlla nañ dox ànd ak moom waa kay jërë ngeen jëf mbokk taalibe yéen ñu doon seetaan yéen